jongante bi mujj tey nag ci li nga xamante ni moo di coupe du monde yi da doon dox ci diggante ñii di France ak Australie équipe nationale bu France nag moo téye ñii di waa Australie daal di leen di mbuqi mbuqi yu méttee méttee méttee méttee métti ñeenti bal ci benn la ñi nga xamante ni ñoo di français yi daal di mbuqi ñi nga xamante ni ñoo di waa Australie ki nga xamante ni nag moo di Olivier Giroud moo daal di dugal ñaari bit Rabiot dugal benn kii di Kylian Mbappé daal di dugal beneen bit bi nga xamante ne ni français yi daal di nañ koy dugal moom Olivier Giroud nag nekk ki nga xamante ni ràññee nañ ko bu baax a baax a baax ci bile jongante ndaxte kat ñaari bit nekk na ci yoo xamante ne ni moom mooy ki ko dugal te moom Olivier Giroud sax ci ndorteel gi mën nañu ni dañ ko woowoon rek ngir mu nekk ki nga xamante ni day dooleel Karim Benzema laatay jongante yi nag Karim Benzema amee ay gaañu gaañu delluwaat ci këlëbam bokkul sax ci yooyu la jongante muy coupe du monde yi am ca Qatar 2022 moom oliver Giroud nag daal di ñëw taxaw daal di koy uutu mu nekk nag koo xamante ne nii ruslowul benn yoon ñi nga xamante ni nii ñoo di français yi ruslowul it ki nga xamante ni moo di Didier Deschamps mi nga xamante ni moo koy tàggat moom Olivier Giroud nag ci ndorteelu li nga xamante ni moo di seen jongante bu njëkk daal dinay dugal ñaari bit moom Olivier Giroud loolu sax moo ko dimbali mu mën a rek daal di dab ki nga xamante ni nii moo di Thierry Henry ndaxte kat bii mooy tax mu daal di nekk ki nga xamante ni dugal na lu tolloog 51 but loolu nag kii di Thierry Henry rek moo ko mus def ci équipe nationale bu France moom Olivier Giroud nag def na lu ni mel. ci fàttali it France moo gañe woon coupe du monde bi nga xamante ni moo mujjee woon a am ci atum 2018 mu ñëwaat daal di gañe jonganteem bu njëkk loolu ginnaaw bi ko Brésil defee ci atum 2006 ak léegi amagul benn équipe rek boo xamante ne nii gañe nga coupe du monde ñëw gañe sa jongante bu njëkk depuis 2006 bi nga xamante ni Brésil def na ko ak léegi France rek mooy ki nga xamante ni moo ko fi njëkk a defaat.